sey naa sëyuma sëy naa sëyuma damay tukki man kenn duma tukki man kenn damay tukki man kenn duma tukki man kenn damay tukki ak damay tukki ak dégguma wolof dégguma wolof nandu ma ko nandu ma ko ndax dégg nga ndax dégg nga ndax am na ku dégg fii ndax am na ku dégg fii sëy naa sëyuma damay tukki man kenn duma tukki man kenn damay tukki ak dégguma wolof nandu ma ko nga ndax am na ku dégg fii Con i corsi di 70 Minute Languages impari fino a 5.000 vocaboli con il metodo per la memoria a lungo termine. Questo metodo è ancora più efficace del video. Nel corso c'è una vasta gamma di esercizi differenti proposti giornalmente in alternanza. anglais nasaraan nasaraan bindal bindal jaaraat ci jaaraat ci xaaral xaaral tous tous benn benn anglais nasaraan bindal jaaraat ci xaaral tus benn Sulla pagina web 70minutelanguages.com troverai la versione demo gratuita per tutti i nostri corsi di lingua. Con la versione demo potrai testare il nostro metodo, conoscere in tranquillità il nostro prodotto e allo stesso tempo imparare nuovi vocaboli. Impara adesso una lingua molto più velocemente che con i metodi tradizionali di apprendimento. ñett ñett ñeent ñeent juróom juróom juróom benn juróom benn juróom ñaar juróom ñaar juróom ñett juróom ñett ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett offre un software per l'apprendimento delle lingue straniere, compatibile con Windows, Mac, Linux, Android e iOS. Grazie al metodo unico d'apprendimento per la memoria a lungo termine, impari in maniera semplice in pochissimo tempo una nuova lingua e sarai ben presto in grado di padroneggiarla. ñeent fukk fukk fukk ak benn fukk ak benn fukk ak ñaar fukk ak ñaar fukk ak ñett fukk ak ñett fukk ak ñeent fukk ak ñeent fukk ak juróom fukk ak juróom juróom ñeent fukk fukk ak benn fukk ak ñaar fukk ak ñett fukk ak ñeent fukk ak juróom Interessanti esercizi giornalieri e una vasta gamma di metodi di apprendimento ti terranno motivato a continuare con lo studio della lingua straniera. Metodi di apprendimento mirati offrono la possibilità di imparare una lingua con successo e divertendosi, adatto a tutti.